benn vidéo bi daw si net bi ñuy wax euh, bi nga xam ne carrément bi nga xam ne peut-être Sénégal la nekk am na stock deux mois sénégalais yi am kër lan moo tax génnewul stock boobu noonu waa INACO waa jàppoo ñoom ñu ne ñu jàpp ni c'est euh, nu mu tudd sax lii nii gars yi ñoo ko pénurie bi nga xam ne la gars yi ko provoqué planifié ko <laughs> donc loolu du bett loolu du ma bett bu yàggul rek démb démb ma xam barka démb barka démb maa ngi doon waxtaan ak euh, ak euh, sama euh, sama xarit Ousmane si Ndiaye nekk UNACOIS ñu ci doon wax te xalaat naa ne xalaat nañu ñun sax ñépp ne spéculateurs yi dañ ci rax te spéculateurs yi bu dee dañ ci rax noonu ñàkkul ñu am ñu leen jàppale ci kaw parce que nag dama jàpp ne état moo yor doole bi

c' est vrai que commerçant li ko li ko intéressé mooy am ay bénéfices. Mhm. waaye nag war nañu xam ne ñoom Sénégal lañuy ñuy liggéeyal itam. Mhm. kon nag euh, bu ñu yokkee yenn njëg yi ci yenn niveau yi mhm. li muy jur mooy ay jafe-jafe te jafe-jafe yooyu ragal naa ne bu yàggee ci seen bopp lay këpp. parce que nit ñi dañuy génn ci ci mbedd yi. ñu koy jëf ñeneen être ñu dugg ci.